procureur mën naa muñ loolu parce que tàmm naa ko waaye nag dañuy am ay mbokk am ay xarit am ay nattangoo ak ay sénégalais dont yéen journalistes yi yoo xam ne toog ngeen deux ans ñuy accuser benn nit ci ay fayu graw te ba léegi tontuwul kon par respect pour vous ak respect nit ñi war naa génn nag ni leen xaaral ma leeral leen ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi nag ma ni kon naa ñëw jàkkaarloo ak yéen waxleen ci lu leer que ne may accuser yëpp dara amu ci man duma ma def njubadi man du ma falsifier soxlawuma ko dinaa leen koon ba mu leer li ma wax leer na dama ñëw pour leeral maanaam ñëwuma pour xuloo duma polémiquer déedéet xalaatuma ko duma polémiquer soxlawuma ko ñëwuma pour charger kenn dama leen wax ne ko am jafe-jafe rek man yërëm naa la kon du fi ñëw pour charger waaye nag war naa leeral parce que soxla ngeen ko te seen à la limite même seen devoir su ngeen seetloo ci ñaari at yi man nañ ñu ni Ousmane Sonko li nekk teg na ko sama kaw waaye boo ko seetee ba ci biir dafa mel ne ñett la may accusé bi ci njëkk mooy daaw ba li doon wax mooy dama ko complot dama bokk ci complot bi ñu ko lu tax mu ne parce que dafa ma bëggoon a jàpp wax naa enquête kat yi leen Ousmane Sonko xam naa ne ku fier la convoqué leen ko mu ñëwee ngeen jàpp. dana leen wan ne loolu loolu dara amu ci léegi bu gaaw ñaareel bi ma accusé mooy ne dafa am procès verbal boo xam ne bi ñu koy enquête damaa seet li nga xam ne moo koy seetal ma génne ko ci boobu moo gën a te yomb daa leen wan léegi nii loolu amul ñetteel bi ma jàpp mooy nee na am na ay photo yoo xam ne dama ko dugal ci dossier bi te bokk ci pour gën koo mën a soroxal boobu tam dinaa leen wan ne amul suñu paree dinaa bàyyi kàddu gi ak ñenn su fekkee am na yoo xam ne bëgg na ñu leeral ko ñu leeral bu njëkk bi mu ne man dama dugg ci complot bi ndax bi ñuy enquête dama wax enquêteurs yi convoqué leen ko convoqué leen ko bu ñëwee ñu jàpp ko foofu sax sant yàlla parce que comme neewul man maa ko complot yóbbu ko Sweet Beauté waxul ni dama doon surveiller Sweet Beauté mais dani li xew bi mu xewee ba pare bi ñu koy enquête dama ni leen bu ñëwee rek jàpp leen ko loolu daal moo ma dugal ci complot mun ñox ko mu ne loolu enquêteurs yi ñoo ko wax man nag li gënoon a simple ci man mooy ñi ma ñëw toog ne leen Ousmane Sonko lii mu wax nii ay sos la amul mais du ma dugg ci pièce bu boobaa ñu ne gendarme mooy ñoo wax procureur ñoo wax déedéet man du ma ñëw naa leen ay sos la xam nga lu may wax dama naan loolu mu wax noonu mënul woon a nekk maanaam ma jàpp Ousmane Sonko c'était impossible mënta nekk. ne dama ko bëggoon jàpp dama leen di wan ne mënul woon a nekk ma jàpp ko xanaa loolu kay moo gën a yomb xam nga lu tax mënul nekk député suñ ko accusé ni dafa violé procureur buy enquête ñaari yoon la ñaar benn bi ñu ni crime flagrant beneen bi maanaam bu ma koy tënk ci dafay ci olof maanaam ñu ni benn bi mooy flagrance beneen bi mooy préliminaire flagrance mooy bi mbir mi soog a xew bu ngeen ko def fàttaliku doon ngeen génn ay débat yoo xam nii dañu ni affaire bi flagrance la war a dem ñu jàpp Ousmane Sonko parce que comme député la mais affaire bi flagrance ñeneen ñi ñu du flagrant ñaari yoon yooyu la su fekkee da procureur nag mooy tànn ci ñaari yooyu su procureur tànnee ni flagrance la jël mën na jàpp Ousmane Sonko. su ne préliminaire la jël mënul jàpp Ousmane Sonko yoon a ko wax du ko mën a jàpp lu dul assemblée nationale dafa yëkkati immunité parlementaire ñu seet ma leen fàtte man ni mbir mi ñaari yoon moo ci am su dee flagrance la mën nañ jàpp Ousmane Sonko suñ ko convoqué képp ni mu def bu ñëwee mën nañ ko jàpp su ñëwul mën nañ ko jëli su nekkee di seetaan football mën nañ ko jëli su nekkee stade mën nañ ko jàpp su nekkee ci siréer bi mën nañ ko jàpp su nekkee fu muy jëndee café mën nañ ko jàpp fu mu mën nañ ko jàpp xanaa loolu gis ngeen ko ba tey ay nit yu ñu jàpp flagrance bu fekkee moom nga def enquête foo fekk nit ki mën nga ko jàpp mais man jëluma boobu man dama ne préliminaire lay def préliminaire mooy enquête leen convoqué leen ko nee du ñëw parce que jàpp na ni député kenn waru ko convoqué te député mën nañ ko convoqué mais boobu débat jàll na ma leen convoqué la ñuy ñëwul ma leen amul problème clôturer clôturer seen PV ngeen yónnee ma kon nu ma koy jàppee loi moo ma tere gis nga soo seetee ci code pénal dafa am article 112 dafay wax ne bu fekkee du flagrant délit soo jàppee député yow mi ko jàpp li nga def forfaiture la dégradation civique lañuy ñuy def muy daan yu garaw garaw man maa tànn. ci ñaari yoon yoo xam ni procureur doo ngay tànn mu ni flagrance wala mu ni préliminaire su nee flagrance mën nañu ko jàpp su nee préliminaire mun ñu ko jàpp ma tànn préliminaire loi bi ne ma yow comme yaataan tànn préliminaire mënoo jàpp Ousmane Sonko lii la la kon gis ngeen ni mu yombe gis ngeen ni mu yombe kon ngeen jàpp ñu ni at loolu la jëm at ak lu topp di ko wax di ko wax ba loolu sàppi mu dem wuti benn PV dinaa ci ñëw waaye kon maa ngi leen di xamal leen man bi ma jëlee yoon bi la ma article 112 tere ma jàpp Ousmane Sonko mootuma ko jàpp li ma mënoon mooy comme li ñu def procès verbal bi ñëw sama bureau ma leen indi leen ñu indi ko su ñëwee ma def ñaar man naa ko teg yónnee assemblée nationale man sama bopp ni leen yëkkati leen ma mbalaanu kirial kirlaay bi te loolu sax am na ñu koy werante su ko yëkkatee laay soo ko mën a defaat benn jéego wala ma jël dossier bi comme ni ma def. jox ko juge d'instruction bi ni ko man li ma jàppoon ne war naa ko def def naa ko léegi yaay seet man loolu laa def dama jël dossier bi jox juge bi préliminaire la nag jël naa dossier bi na dañuy wax day leer da ngeen di wax wax day jeex mais wax kay day leer mooy tax mu jeex yaa wa du ma yem foofu neneen leer na jërëjëf mais du ma yem foofu dafa am lu leen xam nga damaa wax flagrance ak préliminaire am na ñoo xam ne ay werantekat lañ loolu lañ leen joxe loolu lañ leen fayee ñuy werante di dugg ci télé yi di wax di mën nañoo ñëw naan non procureur la waxoon flagrance ak yooyu dafay compliqué mais yow mi nga xam ne jàngoo droit sekk nga santa wala jaw boo ko fee nekk sax di discuter discuter yu xumb xaaral ma wax la luy wane ni Ousmane Sonko jàppuñu ko waa léegi Ousmane Sonko lan la wax nee na procureur Serigne Bassirou Gueye. fu ma bëggoon jàpp procureur ki mooy ki nga xam ni man leen koy fàttali am na sañ-sañu ni flagrance la jàpp leen nee na man ci complot bi laa bokk dama ko bëggoon jàpp. ñu ne déetawaay mu ne commandant section recherche bi nga xam ne moo yor élément yi nga xam ne fu Sénégal nekk mën nañ ko faa yónni mu jàppi ka fa nekk nee na kooku ci complot bi la bokk kon procureur yi nga bëgg am doole tuuti nee na. commandant gendarmerie territoriale bi woon muy Moussa Fall nga xam ne moo yor brigade yi moo yor gendarmerie yi gendarme yu bari mu yor leen man leen a booleeg section de recherche nee na kooku ci complot la bokkoon doole jaa ngi yokku yemul foofu mu ni ministre de l'intérieur mi nga xam ne sax nag léegi waxuma la gendarme ba ay policiers yëpp moo leen yilif kooku ci la bokk ñu ne déeta waay mu ne ministre de la justice mi nga xam ne moo yilif sax procureur généraux yi ci la bokk yaakaar ne pare na mu ne président la République ci la bokk jeex na léegi yow mi nga xam ne jàngoo droit bëggoo discuter dama la bëgg a laaj nga wax ma Ousmane Sonko ñii ko kompaloo ñëpp li ñu yor ci sañ-sañ ak doole ñu bëgg ko jàpp nu mu def ba rëcc nu mu def ba procureur am na sañ-sañu jàpp leen commandant section am na doolay jàpp commandant gendarmerie territoriale mën na ko renforcer ministre de l'intérieur mën na ko renforcer ministre de la justice man na euh, moom mooy kilifa yi euh, procureur généraux yi ñëw ñëpp complot moom mu rëcc fan la jaar bu ñu foyee seen xel nag bëgguma ñu ni parce que dañ koy wax sénégal yi ñoo génn non man waxuma mois de mars de waxuma pourquoi jàppuñu ko mois de mars bi nit ñi génnee parce que loolu am na ñu ne nit ñi ñoo tax bu rëcc ñiy wax li man dugguma ci weer waxuma mois de mars lu tax jàppuñu ko waxuma 7 février bi mu génnee jàkkaarloog Sénégalais yi woo ñii ci mortal combat waxoy def ay déclaration woo Sénégalais yi waxuma boobu de man le 3 février la 3 février bi Adji Sarr déposé plainte nga xam ni coalition wëragu ko nga xam ni collectif bi yëgaguñu lii nga xam ne sénégalais yi yëgaguñ ko moom génnagul wax ay avocat am waxaguñu ay àndandoom waxaguñu moom rek mu nekk wala ña nga ña mu nekkal bariwul ñu am doole ji jëpp ak sañ-sañ bi suñ ko yóbbu woon pour ñu jàpp ko ko koy sauver kon bu fekkee nen dañ ko bëggoon jàpp bax na leen wax fu mu jaar ba jàppuñu ko leer na mën na maa yem foofu non damay dama ci yokk benn li may yokk xam nga mooy lan mooy Ousmane Sonko comme du doyal ci sëriñ Bassirou Gueye day tàppe rek di dóor di dóor dafa wax ba dëggal moom lii ma wax nii moo ko dëggal moom moo ma doon moo ma doon gën a chargé dëggal ni man mënu ma a jàpp lan la wax bi mu demee ba yaramam tàng daf ni Serigne dafa teg leen gaaw leen ngeen clôturer PV bi indi ko loolu Ousmane Sonko moo ko wax yéen ñëpp dégg ngeen très bien su fekkee loolu gendarme yi ko assume naa ko su fekkee man nee nañu maa teg pression gendarme yi ni ko Ousmane Sonko waxee ne yàkkamti leen amul problème ma assumé naa ko boo gendarme waxee maa ko assumé xëy na yi bu fekkee ñoom seen rythme bokkul sama rythme kay ma teg leen pression loolu du problème kon maa teg pression gendarme mais dafa am problème Ousmane su nee maa teg pression gendarme pour ñu gaaw kon loolu maa mooy lan la teg mooy maa teg pression gendarme pour dafa ne nañ maa leen teg pression pour nañ tëj procédure bi yónnee ma ko procédure bi bu ñu ko tëjee yónnee ma ko mooy lan mooy jeexal na mënatumaa jàpp kenn kon gis nga ni ma setale te tayu ko. su ma nee gendarme yi gaaw leen yàkkamti naa leen def leen nangam def leen lii maa leen teg pression j'assume su ngeen bëggee bu fekkee gendarme yee ko wax laa wax de dëggal naa ko bu fekkee waxuñu ko nag man loolu leerum mais su fekkee ñoo ko wax te Ousmane sonkoo jottali ko gëm ko kon su ma yàkkamtee ñu clôturer procès verbal bi mooy sama sañ-sañu jàpp yàkkamti naa mu jeex parce que moom bu ñu ko clôturer ba yónnee ma ko mënatuma def lu dul assemblée moo mooy autorisé wala juge d'instruction moo yor kon yaakaar na ñetti argument ngi ma tegal leen ko yu wane bu ci benn bu ci ne doyoon na pour ma wan leen ni Ousmane Sonko li wax ay sos la naa ci yokk yeneen mais bi may commencé dama ni ñëw mu fi pour charger tey tey conférence de presse bii may def mën naa koo def ñetti yoon wala ñeenti yoon boo xam ne bu li may wax bis bu ne du bokk ak leneen li may wax te àll bi moo koy waxee nag ak dal ak tey ak élégance wóoruma ba xam bis mu nekk laa koy mën moo tax dama ne naa leeral tey ci dal après nag kon ngeen xam ni décision arrêté ko moom mënul woon a ne amul woon su ma nee nekkul woon nag mooy xam nga sëriñ Bassirou parquet la nekk su ma nee décision arrêté mooy man sama jëm bopp bu ja décidé mu woon jàpp ko waaye mooy kilifa yi ma mën a jox instruction muy procureur général aussi joxuma instruction parce que bu ma ko joxoon jàpp ko aussi loolu na leer su ma noonu sëriñ Bassirou je vous ordonne d'arrêter koy jàpp ma ko bëggee jàpp dama koy jàpp kon dama lay won ne la man jàppuma ko te aw ma utu instruction wala lenn luy tax ma jàpp ko kon lii rek moo fi xew daaw waren muy saaga di xas di ma saagalu di ma xaslu lu ne tudde na ma lii rek la lii rek fi am ci boloobu point boobu mu wax ne ma dama ko bëggoon jàpp lii kese moo ci am du leneen bu ko defee nag tey dafa baax